toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. koo xam ne nañ à partir de ses compétences il a xam ne ses diplômes ak yu le président de la République même le Sénégal a besoin de ces compétences là Le président ne ko dama bëgg biscuiterie mais je passe par toi léegi li jaar ci moom député. Moi, tout mon investir que sur les sept du département de Dakar Lolo, honneur là, Lolo, sagla. la ci li nga xam ne Biscuiterie yi. am rek encore une fois de andak ak suñu maire suñu xarit suñu papa Mouhamed Djibril Wad am yaakar ci mom ndax bañu ñu ak mom batay musul def lo ça va à l'encontre de nous tout le temps lu muy def mu ci so jeunesse bi ay décision

son éloquence aussi joue un rôle important. ce crime du dara lu dul jege population bi parce que li wax un homme politique da nga wara a sa population xam seen problème xam seen soxla xam lan moo leen yëkkati je pense que ni loolu moonu mooy moo waral tey tey bu bu yëngatoo ñëpp ànd ak moom ñëpp topp ko parce que dafa daf ñoo jege. nit ñi kenn moomu leen parce que Djibi Wade li ñuy wax ci moom dafa dëkk ci commune bi tëjul portam amul sécurité amul dara lu ku ñew feug duggu ding ko gis nga toogandoog mom waxtaan ak mom juk dem te lool nañ soxla ci leader. population bi luma ma leen di wax moy lenn la rek na ñëpp jàppale mohammed jibril wad parce que ki moy suñu njiglaay ci commune bi te wané nako ko te mi ngi ci wul dara commune bi moko ñor lool mo ci nekk nañ ko jappalé ñun ñëpp waaw mu gagné élection yi. jeunesse bi man lay waxal parce que liñ naan nous sommes les rêve. Donc, nous ce qu'on Nous sacrifier nous, notre avenir. Quand nous sommes fidèles, nous avons des choses nous font être fidèles. Donc, la jeunesse, nous sommes conscientes. Depuis, nous sommes au Sénégal. Le Sénégal, c'est une bataille. Stabilité. sommes dans l'Afrique de l'Ouest, Nous donc mon pays qui a une bataille la stabilité. C'est tout. Donc, nous devons nous s'éteindre lolu di yàqu ci lañ juddu ci lañ yaru ci lañ xamuñu fitna donc ñu ci wo ci fitna bañ ci dem waru ñoo gënal suñu bopp ñun jeunesse parce qu'on est l'avenir de ce pays. J'appelle surtout la jeunesse à voter massivement pour la coalition Benno Bokk parce que euh, cette élection est un tournant décisif pour la coalition et notamment pour le département de Dakar donc euh, waruñu def lenn instant bi commune bi lu jappelé Djibi Wade dem voter ko massivement parce que Djibi Wade mo fi deuk moy doomu gox bi té mom nañu investir ci liste bi donc ñun suñu gar Djibi waruñu gëna bëgg commune bi tay ñun war nañ tok dem jox ko suñu carte voter ko massivement jappelé ko ñu ni vive la coalition Benno bokeka vive mohamed Djibril Wade ci commune de Biscuiterie. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.